léegi mu léegi mu jot. te mu mais ma bëggoon ñambaaf ci tour de temps vraiment mm-hmm. ma wax ko fii. Mm-hmm. gëstu leen ca ndar ba. d'accord mais nag. ñu dem léegi tour de temps boo boo xam ne dañu ko def dañ ko fas yéene euh, boycotté ku nekk mën nga rebondir rapidement après nga ñëw si question bi. Euh, merci yaay Fatou. Mm-hmm. tey jii beaucoup de questions ñu ngi koy posé si pertinence su. Euh, institution mel noonu au conseil des collectivités territoriales ba sax faf looloo tax yeewu ak wàllu nee na ñoom looloo tax ñu sax foofu ñoom bokkul parce que amul benn njëriñ yërëmuñu askan wi bu nekkee dañuy dem si loolu yow nan nga ko jàngatee. merci Diallo donc par rapport ak au conseil bi. Mhm. avant may ñëw ci yeneen conseil bi moom xam naa bii moom day gàtt parce que réponse bi dafa simple bii moom amul débat. Mhm. da nga ne bokkuñu nee nañ duñu bokk. Mhm. waaye bokkoon nañ au conseil du lu bees de. ñu ngi woon ci biir. ce sont les mêmes réalités lu tax lu changé diggante première législature bi ak deuxième bi lu ko changé man gisuma ko gis nga état quand on parle de république état dafa am ay institutions yuy tënk la dynamique politique de l'état institution yooyu ñii ñuy wax waa wàllu ba nekkee woon au pouvoir avec le président Ablaye Wade mm-hmm. ils avaient jugé que c'était nécessaire de mettre en place le Sénat. Mmh. le président Macky Sall est venu moom dafa ñëw théoriser l'acte trois de la décentralisation il a dit on applique et on corrige en même temps et c'est une démarche boo xam ñun dañ dañ cee ànd ñun dañ chaotique c'est pas chaotique yéen a koy wax parce que l'acte 3 de la décentralisation dafa nekk une une vision une communauté rurale sans ressources nga def ko. mais mais defal ndànk rek xam nga man maire laa. ko maire waaw defal ndànk rek mais léegi dama ne ñoom bu leen. defal ndànk rek ñoom ñaar bu daggante. non non bu daggante bu leen dagg xam nga commune. Hmm. division bi président Macky Sall daf ko fi fekk. fekk fi lu bees da fekk division mu amoon ay communauté rurale am ay commune mu ne ci pilier fondamental am bi nga xamante ne mooy l'axe 2 ak axe 3 du plan Sénégal émergent c'est régler les inégalités enlever les complexes. axe 2 bi non attends axe 2 bi mooy développer et améliorer le capital humain mu ne damay def communalisation intégrale commune yëpp ñëpp amatul communauté rurale parce que réalité boobu xam nga yéen euh, peut-être que Dakar ngeen dëkk mais ñun ñi nga xam ne on était les communes rurales ñun xam ne loolu ñu teg parce que les communes rurales. xam nga lan mooy dignité bi les communautés étaient sous tutelle sous la tutelle des préfets te maire lañu comme yeneen maire yi président communauté rurale daanaka statut maire la président ne léegi ñëpp ay maire du moment que élection moo ñuy fan même élection yi la. mooy erreur bi non du erreur defal ndànk. et aujourd'hui c'est une mauvaise décision mais c'est une dynamique ça parce que ce que ça nous permet man je suis maire xam nga gagné premier mandat premier mandat gagné na dañ ne espoir la. mais boo gagné deuxième fois ça c'est de la confirmation. comment au niveau de la mairie. comment on fonctionne on fonctionne comme l'État fonctionne. comment comme on on fonctionne. on avec quel, avec quelles ressources. avec les ressources que nous devons nous maires avoir la capacité de produire. comment l'État a des sources de recettes. sa dëkkuwaay lan moo fa am ci ressources. man sama dëkkuwaay am na mbay. Mhm. am na xorom. Mhm. am na sama première capacité première pour man. Mhm. première source de recette commune. c'est la population. deuxième source de recette mooy les lignes classiques de source de recette c'est-à-dire le fonctionnement naturel de la vie les taxes de stationnement le fonds de dotation l'état appui yi muy def les BCI les transferts yi état bi def maintenant ce fu ñu war a wax c'est pas le fu ñu toll dañuy évoluer c'est quoi l'objectif de la décentralisation c'est partout pour nga gis décentralisation. le procédé n'est pas bon. mais le procédé mais est trop quand, bon. Quand, si vous arrivez en Chine yaay baal ma quand vous prenez par exemple une décision comme la contribution économique locale. celle. Hmm. oui yéen a ko jël comme décision. oui vous allez prendre des recettes de la ville de Rufisque. y a les ressources. ngeen fekk te ngeen jël ay recettes am xaaj ko si digg bi gàddu ko ne non dañuy sédd waa sa commune. Ngathie Ngathie. oui sédd waa c'est-à-dire que. loolu jaxase la. mais attends c'est pas pertinent. mais pas Assane comment ça loolu nu mu nekkee jaxase. léegi léegi pas da ngay nangu commune. ki nga xam ne am na ressources yi nekk niveau commune ki nga xam ne amul ressources yi nekk niveau commune. Hmm. waruloo ko def commune. mais Paa Assane ay nit ay Sénégalais ñoo ay Sénégalais ñoo dëkk foofu. mais Paa Assane Paa Assane attends Paa Assane je ne suis pas d'accord tey jii tey jii tey jii. ñun ñu nekkoon commune. ñu nekkoon ay dañuy bokk ci benn commune. Hmm. déedéet mais pas ça. non non non c'est comme ça ça communauté rurale bu ne commune la. pas ça non non non demewul noonu. yaa ngi mel ni Thierno Diop léegi de. non <laughs> communauté rurale bu ne. non non non communauté communauté rurale bu ne. communauté rurale statut la woon. commune statut la woon du communauté rurale day bokk ci commune c'est pas ça. c'est des entités différentes. la la gestion administrative. Attends, via attends. le le préfectorat. bu ñu wax ci histoire. lu tax président Macky Sall ñun régler les disparités. Hmm. ñun ñu nekkoon ci kaw gi dañ daan fay suñu impôt suñu impôt lañ doon jël. di ko investir di ko defaree dakaar di ko defaree Rufisque. il faut pas le voir comme ça. si je le vois comme ça yow lu tax nga gisee ni waruñu jël xaalisu Rufisque ñëw defaral ñu. man ma gisee ko noonu. non seen samay impôt lañ daan jël. juge leen parce que vous étiez la capitale vous étiez le centre ainsi de suite ainsi de suite di leen defaral ñun ñu toog ci àll bi le moment est venu nag ñu am un président égalitaire mu ne Sénégal Sénégal c'est un territoire qui est divisé en plusieurs entités et chaque entité est d'égale dignité avec beneen entité bi chaque entité am na possibilité maintenant d'être aussi attractive que beneen entité. Oui. et l'émergence de toutes ces ent ces entités. Oui. mooy la conclusion de l'émergence du Sénégal. depuis 2014 résultats yi c'est quoi les résultats sont probants les résultats sont là. Comment? les résultats sont là Pa Assane ça nous a permis aujourd'hui nous d'être d'être euh, des élus locaux des des de l'exécutif local. d'avoir un impact. Qu'est-ce qui a changé dans ces communes mais s'il vous plaît s'il vous plaît parce que koo fa nag yow tam nag. s'il vous plaît loolu du débat bi. bu ma laaj doon di rek loolu doon je débat bi. non non non non non s'il vous plaît non non non non non non non non non non

et un de ses cheval boo xamante ni moom moom la gisee sa mmh. politique donc institution boobu moo indi le conseil départemental pour gérer les intercommunalités dans un même département parce que y le conseil régional bu mu fekkoon mu wàcce ko ne foofu dafa sori pour que tous les trois départements par exemple d'une région war a daje au niveau d'une région je préfère qu'on décentralise pour que l'intercommunalité puisse être gérée dans le département ñu des politiques publiques loolu président Macky Sall daf ko def un objectif dama bëgg la politique publique l'amel maa ngi ñëwaat encore ci amélioration du capital humain que les populations foo munti nekk ci Sénégal nga xam lan la nguur gi nas ak lan la la fas la fas yéene jëme et pour ça il faut que des relais relais bi am au niveau départemental mais il faut qu'il y un relais au niveau national le niveau le relais au niveau national mooy le haut conseil des collectivités locales tey jii ñii bañ ne du bokk gouvernement lañ ne kon loolu ñun amuñ ci problème xam nga li leen wóor mooy liñ doon wax ne élection locale yi ñoom ñoo gagné xam nga élection locale ku gagné moom yaa ëpp conseil mu wóor leen ne buñ demee fii défaite bu leer nañ la ñuy am sénégalais xam ne majorité bi ñuy oote nekkul ñe dañuy boycotté mais ñun d'accord nañ parce que xam nga lu tax football forfait da cee bokk équipe bu ne am nga droit boo ragalee ñu dóor la nga forfait loolu amul problème ñun ñëpp di sportif man loolu ñun amuñu problème ñu dem ak ñu ñàkk dem ñu dañuy dem élection bu ñu jub élection législative yi ils avaient prôné ils avaient tout fait pour que élection bañ a am parce que wóolu ñu woon seen bopp ils avaient tout fait mais en tant que démocrate en avec un président démocrate il a dit on tient les élections malgré la conjoncture malgré les difficultés il a montré sa dimension républicaine et ces résultats là man dama koy permettre ci sama gëm-gëm attribuer ko le président Macky Sall parce que le le capital moo tax dafa miser. Mhm. ana wax la dafa bàyyi li ñuy wax mhm. liberté d'expression. il a été démocrate def liberté d'expression bàyyi peuple bi information bàyyi nit ñi ak seeni xel ba le capital humain s'est amélioré ba tey jii assemblée nationale ñu ñëw am résultat bi ñu am nga xam ne on a une mhm. forte cohabitation fi may daanelee fi may daanelee rek non une forte une forte cohabitation ñun ñëpp là-bas dans la dans ah, le président Macky Sall est le président de la République l'Assemblée nationale ce sont les députés qui vont cohabiter entre eux ah ok mm-hmm. c'est sa réussite moom mm-hmm. maintenant par rapport aux aux élections c'est des têtes de liste comme Aminata Touré mm-hmm. ak tête de liste yoo qui ont compétit donc euh, voilà c'est aussi euh, simple sonn na fi mais yéen boo leen naan yéen waawal yeewi rawatina yéen waawal ngeen ne doo leen bokk ci euh, euh, élection yi parce que li ngeen si